وجهت وجهي ذا قرب من الله بجاي أحمد ذا سوق إلى الله الله أكبر مما كنت أفعله ولست أخشى ولا أرجو سوى الله Daarul Xuddoos di génn ci kër yi Serigne Touba yi nga xam ne Serigne bi moo ko sos sanc ko ginnaaw bi mu sancee pàkk bu tedd bi di tuuba ni mu sance yeneeni kër lu mel ne daarul rahman ñu gën koo xam ci daarul bayadin waaye itam daarul minan ah di kër goo xam ne sëriñ bi da ko sancoon ngir munaajaat ak boroomam ngir déyaale ak boroomam seen rubrique bi bees bi nga xam ne moom lañ leen tànnal ñu tuddee ko nemmeeku tey di suñu numéro un ñu bëgg koo tàmbalee fii ci kër Cheikhul Khadim gii nekk Daarul Xuddoos rubrique nemmeeku nag jubluwuñ ci lu dul gëstul leen ay barab yoo xam ne dañoo am taarix ci yoonu murit waaye itam sëriñ bi def ay jaar-jaar def ay jaloore rubrique boobu lañ leen indil tey bëgg koo fas yéenee tàmbalee fii ci Daarul Xuddoos war cee ànd nag ak koo xam ne bu ñu gisee jëmmam danañ xam ne ku mën a waxtaane barab bii la. boroom xam-xam la jàngalekat la waaye historien la ci jaar-jaar ak barab yi nga xam ne cheikhul xadim sanc na ko ñu koy wax sëriñ ahmadou jaay ngeeraan sëriñ ahmadou ndiaye ngeeraan moomu mooy doon suñu gan gu njëkk ci suñu rubrique nemmeeku moom lañu war a àndal ngir xam xamle barab bu tedd bii di daarul xuddoos kon ñu àgg ci biir giseek suñu gan gu tedd googu di sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane zikri wa sukri wa ridwaani wa mahmadati bil qalbi wal jismi wal aqlaami lillahi kulli law jalla fi sirrin wa fi alanin walastu asalu xayra nabillahi rabbaani ya nabi wal wahab waskuruhu ما دمت حيا بقول الحمد لله وغاني أزر تكريما وجالي بسم الله alhamdulilah ñu leen di ziar bu baax a baax jërëjëf na yàlla nangu ko di leen ndokkeel ci liggéey bi tabarakallah di leen jaajëfal itam ci barab bu tedd bii ñu nekk ak saytu gi ak taxawaay yu rafet yi nga xam ne yeneen koy ciy taxawal. ni ñu ko waxee ci ubbite bi rek noonu lañ ko fas yéene defe tey ñu ngi fii ci seen rubrique bi ñuy wax nemmeeku euh, te MKTV jagleel leen ko ngir nemmiku barab yu sell yi nga xam ne am na taarix ci yoonu murit waaye itam am na histoire ci sëriñ bi jaar na fa am na ay jeexital yu fa nekk ñu bëgg ñëpp mën koo découvrir jariñoo ko tey nag ñu ngi fii ci Daaru Xudduus mooy suñu numéro un fii la ñuy noo ci këri sëriñ Touba yi. daarul xuddus bokk ci kër yi nga xam ne moo ci ëpp solo ngir ay jeexitam yi nga xam ne ci kanam tuuti incha allah dinañ ko gis ci émission bi ñu ñëw fi nag ngir war a euh, waxtaanee euh, kër gii di daarul xuddus euh, war ko séq ak ni ma ko waxe woon borom xam-xam gëstukat jàngalekat waaye koo xam ne historien la ci yoonu murit ci jaar-jaari sëriñ bi ñu koy wax sëriñ Ahmadou Ndiaye Nguerane moom lañ war a àndal ci euh, suñu rubrique bii waxtaani kër daarul xuddoos gi kon dañ koy jox rek mu nuyoo bu ko defee ñu doog a tàbbi ci waxtaan wi sëñ Ahmadou asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. mbokki julli bokk taalibe bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziare. ñoo ngi fii tey ci këru daarul xuddoos taxaw ak bokki taalibe yi sëñ Abdoulaye Diop ci noonu moo ko waxee rek. Euh, lépp rek jëm ci labirante ak mbokki bi yi dañu gën a xam jeexital yi bàyyi ko ci sëriñ bi ngir gën koo mën a sayto ak gën koo mën a jariñoo itam ci sàmm orma kon noo ngi leen di ziyaare bu baax a baax tey ñaanal ñëpp nag yërmaande suñu borom ak njëggalam barkeb barab bi ñu taxaw daarul xuddus kër yàlla loolu la ko mag ñi daan wooye kër yàlla alquddus mooy tur benn tur la ci turi suñu borom yu sell yi kër gi sëriñ bi noonu la ko tuddee ñu bëggoon a xam daarul xuddus jii di kërub sëriñ bi bokk ci këram yi ginnaaw Touba am na yeneen i kër daarul minan am na daarul rahman muy daarul bayadin daarul xuddus gi kañ la ko sëriñ bi sos kañ la ko sanc ak lu taxoon mu sanc bismillahi rahmaani rahim barakat cheikhil bokk taalibe seetaan ko sëñ Abdoulahi waxe barab bi benn la ci barab bi sëñ tuwaay di barab bu ràññiku itam ci ak tundam di barab yi itam bu fees dell ak taarix sëriñ baa ngi ko sanc ci 1890 ginnaaw boo xamante ne ni sanc na barab bee jumaa ji nekk mu doon kër gu jëkk ci 1888 ñaari at la fa def ci 1890 mu sanc kër gi barab bay moo tudd Touba fii mu tuddewoon ko daarul xudduus li rabbil alamina mursilu ahmada moom la ko tudde doonoon it kër goo xamante ni nii kër gu mu saxoo woon la ci ak mu jëm ci ay jataay yu bari bari yoo xamante ni nii dana am ci biir kër gi ci waxtaanee allah dana feeñ kër goo xamante ni nit diggante boobu yi ma ko sanc ba 1895 jëm fi jógee dem Mbàkke Bari ca Jolof juróomi at yooyu li ëpp ci ak nekkam fii la ko doon ne mu doon kër gu wéetaay goo xamante ni ni xalawaat yi ëpp ci la mu doon def fii la ko doon defe kum fi woowut itam ñaare doo ko fi fekk rëyaayub kër ak wéetaay wi nag moo taxoon mag ñi tudde ko kër yàlla ndax mm. kenn nekku fi moom rek moo fi ne comme fi soxla itam ci mag ñi nga fekk ko fi waaye du kër guñ bari woon ak jataay boo xamante ni nii mu neex waaye mu ñëw loolu daal mooy li aju ci barab bi. macha allah wax nga ko léegi ci biir mooy suñu ñaareelu laaj sax ndax bëggoon nañoo xam am na ñu fi dëloon ñoo xam ne dañ fee saxaloon ngir jàng wala euh, ngir tarbiye leen waaye nee nga daana kër gi kum fi woowul doo doo ko fi fekk. mën nañoo xam ay mag ñoo xam ne woo na leen fii wala mu dël leen fii ci ci ci kërug Daaru Xuddoos gi waaw barab bi daal xam naa ni ci gën a ràññiku ci def loo leen fi dara mooy sëriñ Daaru Xasan Njaay hmm. moom dugguloo na ko fi xalwa ab diir budul benn du ñaare am na yi itam ay liggéey yoo xamante ne ni def na ko fi Cheikh Ibra Fall defloo na ko fi itam sëñ Mandumbe yooyu itam yu ci ràññiku la ginnaaw bi itam am na ci ay liggéey yoo xamante ne def defloo na ko ma sàmba def loo ko fi sëñ am satuloo ngabu yooyu daal moom xam naa ko ci aggastu moom yoo xamante ne ni koo xamante ni da fi dëloon ñu dëkk fi féete fi moom moom gisaguma ko ci ci taarix loolu ni daal comme fi soxla woo këru weetaay la woon daal goo xam ne boppam la fi daan soxla moom la fi daan nekkal loolu waa ba tey itam loolu nga wax ne këru weetaay la sëriñ bi daf fi daan jaamu boroomam ba tax mag ñi tudde woon ko kër yàlla siiw na ci histoire ne sëriñ bi def na fi xalwatu xalwatu gu mag goo xam ne ba léegi histoire da koy tudd gisee na fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah xalwatu boobu lañ bëggoon a xam diir bi mu fi xalwa ndax ni ko waxee lu toll daanaka juróomi at sëriñ bi def na ko fi 1890 ba 1895 li ci ëpp ci barab bi la nekkoon xalwatu boobu ndax ci biir kër gi la ko defee wala ci jàkk ji la ko defee. waaw jàkk ji kër gi da koo ëmb Sëñ Tuubaa bu ñu seetloo li ëpp ci aw dëkkinam jàkkam néewut ci penc ñu kër ga leen jàkk ji kër gi da koo ëmb kër gi doon kër gu rëy jàkk ji ne ci biir. néeg bii nga xamante ni moo nekk ci sunu gannaaw itam nga xam ni daanaka moo far yóbbu turu kër gi da koy wax bayti mag ñi daan wax ni baytul maamuur ñenn ñi ni baytul muqaddas ñeneen ñi ci des ni baytul xalwa daana ci dugg ci la daan duggee xalwatum yu bëree bëri waaye ci mujj gi nag xalwa bi mu fi mujj a def nga xam ne mooy bi ci gën a ràññeeku nga xam ne bi mu fi jógee la soobu yoonu géej boobu ci jàkka ji la ko defee li'tikaaf la muy ñaar fukki fan yi koor ga di fukki fan yi mujj ci weeru koor bay sësin ci la def li atikaaf ci jàkk waaye lu lu jiitu loolu nag daana def eh, xalu xalwatu ci biir néeg bi ay fan yu yàgg a yàgg door a génn léeg-léeg mu mat weer léeg-léeg weer fukki fan léeg-léeg mu def fa quinze jours léeg-léeg ayi yu bëree bari waaye bu dee ci jàkk ji moom fukki fan yi mujj ci weeru koor moom la fi def muy li atikaaf ca bay sësin ji mm-hmm. ba ñu woree ca ñetti fani koor ga wala juróomi ca la fi takk ay bagaasam daal di dem ci i'tikaaf boobu nag ci la gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wu leer woo xamante ne du ci ay nelaw ayyaanan la wax waaye bay na xijaabin raqiq nee na lu mel ni rideau bu transparent moo dox suñu diggante maa ngi koy gis di gis ahlu badri yi mu àndal waaye mënu ko jox loxo loolu ci jàkka ji la xew woon nga xamante ni waxante na faag moom waxante bu yaato yaatu boo xamee histoire du dañ di ko nettali te loolu moo sabab yoonu géej foofu yi itam wax na ni yonent bi proposé na ko fa maqaamam xutbaaniya waaye sëriñ bi yitteem ju kawe tax na xam na ni lool li muy rëy waaye li mu bëgg ko moo tax sax léeg-léeg may wax ni na woy Sëriñ Tuubaa ci yitte yitte ju kawe ndax loolu yitte la Euh, ñoo ñi àndoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ahlu badri itam mu xeemeem leen ba tax mu laxasaa yu bëgg a ànd ak ñoom itam loolu itam yitte ju kawe la ndax ñoo xam ne bañ fi jaaree ak léegi mat na daanaka ñetti téeméeri at ak junni at ak ñetti téeméer ak lu topp nga laxasaayu ni ñoom laa bëgg a dabi loolu buñ ci nattee noonu suñ diggante ak sëñ bi war na noo xam suñ yitte des na moom sax ndigalam mooy rabbi asxaabaka bil himma ok himma googee nag da koo wane da koo ndax bi muy gis yonent bi ayaanan ci lu leer mu laxasaayu bëgg bokk ci ahlu badrin booba mille trois cent douze la te moom mille deux cent soixante dix la gën a àdduna kon écart bu bare bari dox na diggam ak yonent bi waaye bu demee ba ni yu sayiru ni kal ali wa sax bi salmadal yitte la te loolu feeñ feeñ feeñ na ci diggam ak te diggante bu tuuti la dox eh, ni sahida allahu bi anni wahidun min ahli badrin kon dab na groupe ba ma nga ci seen biir loolu moom bokk na ci yataay yi nga xamante ne ni am na ci biir kër gi mu am fii baneen barab bu ne ci gannaaw boo xamante ne ni ndiggante la ko mag ci daan wooye moom it ak kees la goo xamante ne ni sëriñ bi moo ko moom garab ga fa nekk itam bokk na ci garab yi nga xamante ne ni ci fi des ci dëkk bi nga xam ne Sëriñ waa teg na ci bët mm. ñu ngi fi ci gis gële ci buntu ko sëñ Fallu bëreetut mhm. dañ koy lim mhm. foofu itam baraba ma boo xamante ne ni ci barab yi wéetaay yi mu daan wéet mhm. ci la bokk waaw moom itam foofa am na ay bokk yu fa nekk yoo xamante ne xëy na bët mënu leen a gis yooyu ci laa bëggoon a ñëw sax ci laa bëggoon a ñëw ndax eh, dégg nañ ci ay gëstu ne eh, am na ay bokk taalibe yoo xam ne xëy na wuute nañoo ñun jëmm wuute nañoo ñun melo bokk ci aju ci sëriñ bi te nekkoon ci kër gi ndax loolu lu weer la. waaw loolu moom lu wér cee nga la moom ndax bari na ci mag ñi ñoo xamante ne ni teg nañ leen bët. Hmm. ñeneen ñi ci des itam nga xam ne suñu borom may na leen Bachira waxtu wu ci nekk ñuy fiiroo ak ak ñoom ndax euh, gannaaw sëriñ bi rek maam Thierno Birahim jóge na Daarul Mooti boo xam ne fii la yendu ci kër gi mook sëñ Matar Samb ba ngoon jot mu gontaat delluwaat Daarul Mooti. sëñ Matar laaj ko niko ko daal amu ah, jaaxle ci suñu yoon wi ndax ñëw ba Touba yendu fi ba ngoon jaaroo ca barab ba mu ni ko ñoo ñi àndoon ak sëñ bi laa doon nemmi ba xam fu ñu toll waaye ñu ngi fi mm. demuñu fenn booba ak léegi nag jóguñu fi mm-hmm. ñu ngi fi lu leer na ñi la it yoo xamante ni ni argument yu bare bari yu mag ñi di nettali ci fiiro ak ñoom ci mm. barab bi mm-hmm. ak ñoo xamante ni nii suñ borom dogal na ñu ñu teg ko bët loolu mooy firnde ni ñu ngi fi. fa ñu nekk de xanaa fu dogo la. fu dogo dogo la foo xamante ne nii kenn du fa kenn du fa nekk loolu sax bokkoon na ci mm-hmm. li taxoon Serigne Cheikh bi mu wutoo Serigne Moussa mm-hmm. bâtiment bi mu fi tabaxoon ci bunt bi la ko def mm-hmm. ndax ne kër gi daa mu melokaan am ñu fi nekk ñoo xamante ne ni seen doole daa bari te taalibe ñu ci bari xamuñu fu ñuy yem mu bañ ñu loru ja mu def bâtiment bi ci bu nga xam ne ku dikk foofu nga yem waññu ko waat ñun itam moo tax sax ñu yem fii <laughs> moo tax ñu yem fii ngir bañ a loru comme ni nga ko waxee Euh, kon ma mel ne xëy na jeexital yi nga xamante ni moo nekk ci kër gi yëg nañ ne dégg nañ ne am na ay bagages yi sëriñ bi bagages yi boppam yooyu mu ngi ci biir bayti ci néeg boobu ñu tuddee bayti sëriñ bi doon fi defee xalwatoon bi. waaw bagages yi moom am na ci bare bëri yoo xamante ne ni mi ngi fi ndax bagages yi nga xamante ne ni moom la yóbbu woon ci géej gi ñu dikkee ànd ak moom ba ñëw daarul man naan am na yum fa bàyyi woon ginnaaw bi amoon na yum fa lu indi ko fii bi nga xamante ne nii suñ borom dogal na mu mu demaat ba euh, gànnaar jóge fa ñëw ceyeen jóge fa delluwaat njaareem bi mu delluwaatee njaareem it bagages ya fa nekkoon am na yoo xamante ne ni sëñ am sa tulloo ngabu ak sëñ ma sàmba agam ñoom la ko sëñ bi roñloo indiloo leen ko fi ginnaaw boo xamante ne ni da leen fee yabal sax ñu def fi ay néegi kaas mat fukki néeg ñaar lañ fi takk am na jamono boo xam sax mag ñi daaru kaskare lañ koy wax ginnaaw ba la leen roñloo bagage yooyee nga xam ne moo nekkoon ca taaxi Jurbel ya ni leen nañ ko indi fii boo demee ci biir mbindam sax am na fu mu ciy wax ni wahab lillazina xat naqalu am tiati yow mal jawaama yusqalu nee na ñoom la ko doon sante ndax defin wala xamante ni ni def nañ ko muy defin mu sell kon am na ay jeexital yoo xamante ni ni mi ngi fii ci biir kër gi bagage yi bopp ma lu sikk ca bagage yi xëy na yàggaayu jamono la waaye noonu mu ko bàyyi woon ba léegi bagage yi noonu la mel. ku tudd Darou Khoudoss tudd Cheikh Mouhamadul mustafa di doomam ja waaye di taalibeem bu mag ba boroom yitte ju kawe ja moom it roy Cheikhul Khadim loolu ci yitte ju kawe dafa mel ne moom lañu ñu rafaatale kër Darou Khoudoss gii mu yore woon ko Cheikh Mouhamadul Moustapha moomu yan jamono ndax moom itam saxoon na ci biir kër gi dafa nekkoon ci beneen barab jamono bi mu nekkee tuubaak bi muy bi ñuy euh, gas ngasum raay beeg fortement jumaa ji ndax jamono yooyu Cheikh Moussa Cheikh Moussa fii la newoon ci kër yi. waaw moom itam euh, lu teesoon ci li mu doon wax lekk ci barab bi sax mooy sëñ bi ci ak mu jëm. vingt 926 jëm 27 la woolu sëñ Mandumbe ni ko boo demee ca etuk soow ga ci jëm bëj gànnaar. Mm-hmm. nga defal ma fa ak bëj Saalum. bëj Saalum. nga defal ma fa denc kayu téere bu te sawara mooy bâtiment boobee fa nekk 1927 la noppi mooy bu yàgg boobu moom la yàgg moo fi jiitu ci dëkk bi e, ginnaaw boobu bâtiment ba noppee la tasanteeg sëriñ bi ñibb si Touba am na ci bagage yi sax yoo xamante ni foofa lañ ko defoon ngir baatub sëriñ bi ginnaaw boo xamante ni ni ci Cheikh ak euh, déggin wi moo ko def école ne dencukaayu téere bu të sawara nit lay doon nit lañuy ñuy préparé ba mu të sawara uh-huh. yooyu wax ni jublu ko loolu ak dégg la ci sëriñ bi uh-huh. ginnaaw boo xamante ne nii sëriñ bi ñibbu si na Tuuba nag sëñ sa mag ci njaboot gi moom moo sancaat barab bi yeesalaat ko sëñ bi demee rek ca tamxarit wa ca kori wa la ñibbi si Tuuba uh-huh. ab jataayam lépp itam ëppee Tuuba ci biir kër gi la ko def dundam gépp ci biir kër gi faneen fu mu fi jóge daa dem ñëwaat waaye kër gi moo doon baasam moom moo moo ko moo ko moo ko dekkalaat euh, dajale fi njaboot gi itam nag njabootu Sëñ Tuubaa tut tuut tànk gi xam ne fu mu nekk nekk fa ak ñoom ñoom ñëpp doomi Sëñ Tuubaa yëpp jaar nañ fii ci biir kër gi sëñ di mos na nett ni ma fii jàkka nekk sama néeg newoon na fi ak sëñ Dan Xarilo ak sëñ Murtala jàkkaarloo ma nekk dëkk dëkkoon nañ foofu kon moom jamono yooyu la fi nekk néeg sëñ bi itam daf ko yee salaat parce que fenn fu néeg ne woon da ko faa delloowaat boo gisee kees gi boo ci duggee kees gi bunt yi fi sëñ bi bàyyi woon bunt ya noonu lañ ko bàyyi toxaluñ ko xëy na jëm mi tabax bi mën naa soppiku ndax ay sàkket ki dóor daanu la woon léegi mu doon i tabax waaye jëm mi bunt yañ daan jaar moom ba léegi bunt ya noonu noonu lañ ko bàyyi diirub bi mu doon xalifab sëñ Moussa itam fii la sëñ itam fii la nekk bañ na ko ba ci biir néeg boobu moom foofu la wàcc ab liggéey foofu sëñ bi daan toog doon def xalwatu yàlla dogal na foofee fa la tëdd fa la suñu borom jëlee ak room ba léegi itam barab booba kenn pérumu ko noonu lañ ko bàyyi waaw moom mu ngi ci biir néeg bi loolu lool bokk na ci li nga xamante ni mooy taaral patrimoine maanaam boo duggee ci kër gi ak fi jamono toll ci modernité nga gis kër gi ni mu mel dafa mel ne jubloo bàyyi jeexiti sëñ bi ci kër gi looloo ko waral waaw parce su da wax ni sëñ bi dafa mel ni wan ki mu wanul adduna gannaaw daa feeñ ci li moomal boppam uh-huh. ndax boo duggee ci biir kër gi ak li fi ne ci ay moyens nag ni kër gi mel da nga yëg ni kër gi bokkut ak kër yi même njaareem boo ci duggee kees boo xoolee da cay feeñ bu baax a baax a baax ci ni fii eh, modernisation bi li ci mënta ñàkk moom lañ ko def muy couverture ko uh-huh. parce que bokk ci lim daan dénkaane mooy sama kër yi bu buñ ko bàyyi sama gannaaw mu bari bunt fu neex waaye mu jaar uh-huh. loolu nag jamono rek moo agsi fii ñu collecté ko luñ doon waaye kër la goo xamante ni daal mat naa bàyyi xel bu baax a baax ndax am na nay jagle yu bëree bëri amoon na itam daare kaamil joo xam ne te ginnaaw sëñ Moussa la ko fi def mm-hmm. waaw waaye du woon joo xamante ni dafay sax bi fi sëñ Moudou Moussa ne daare kaamil ci ci jumaa ja la ne waaw kay jooja ba léegi moo continuer di am waaye màggaayu dëkk bi ak bari mbooloo mi tax sosaat beneen daara joo xamante ni lépp dab dabu bëgg sëñ bi rek lay doon loolu itam mi ngi fi sëñ Moussa nekkee nag nga xam ne fii la dëkk na li nga xamante ne ni orma nga xam ne moo gënoon a jege sëñ loolu kenn dëkkewu ko moom rek moo ci newoon dem ak ñëw léegi nag li nga xamante ni moo féete woon ca tokkoor baak jëm ca dencukaayu bagage ak yooyu mu sancal fi njaboot gi ñu nekk fi ndax noonu nga waxee ci wàllu jeexit yi fi am ndax barab la boo xam ne murit yëpp dañuy bëgg ñëw di ko ziar di ko mhm. découvrir ndax li nga ci wax nii day day barab bu day waar euh, ndax am na conservateur maanaam ñoo xam dañ leen ko dénk ñu yor saytu gi di ko di saytu barab bi ak limite yi nga xamante ni moom lañu war a am ci limite yi ziar yeeg yu mel noonu. waaw bu dee jëmmi barab bi moom jëmmi kër gi mhm. moom ci baatub sëñ du la nekk bu ko defee yokk fenn fu ci nekk itam Muxtaar moo xalifa Cheikh Mouhamadul Moustapha ah. yàlla na ko suñu borom yàggal lool tamit moom moo yor baatu bi barab bi bu defee fi nga xamante ni nii foofu la ñuy denc ci bagage yi waa Daaru Njaay ñooy wut waxtu ci nekk ki fii nekk loolu itam ab cër la boo xamante ni nii xëy na relation la bu doxoon sëñ bi ak sëñ daaru ci wóolu gum ko wóolu woon ci barab bi mm-hmm. muy benn defloo na ko fi xalwa yeesaloon na ko fi kër gi itam ci dóor dóorub ngeer boo xamante ne ni ah, jóge njàmbur ànd ak booloom defaraat ko dugguloo na ko fi xalwa itam ci jataay yu yu bëree bëri moom lañ ko bàyyee njabootam ñu defar defar ko defaraat bu mujj bi sëñ Moussa Gaynde Fatma moo ko defaraat ngir gën a mën a bëgg conserver bagage yi ñu defar ko ay vitrine jël gaal yi dugal ci parce que gaal gi woon Daaru Marnaan nga xam ne moom la mbaaxaan ba noonu ak xeej ba mm-hmm. te yooyu tuumaal sëñ bi ay baga ay ngànnaay ci nekk mm-hmm. ba léegi boo demee da nga gis xeej ba fa mu ne da gis gaal gaal yi nga xamante ni moom la sëriñ bi yóbbu woon ci géej gi itam bi muy dem yooyu yëpp mu ngi ci biir mooy gaal goo ci gis mu am lam bi ci kaw demoon nga xam ne moo ko daan jëlal boppam kenn du ko jàppoo moom moo ko daan jàppal boppam euh, daal yam fa daan sol itam ndax sëriñ bi ku organisé wu ndax euh, bu fekkente ni ni noor la ay nii pay lay sol bu fekkente ni nawet la karbati dénk lay sol bi mu nekkee eh, Gabon na nga xamante ni foofu montagne xeer yi dàll yi weñ la moo tax naan borom karbati weñ bi weñ lay doon mais waro yi mooy doon der ma ni leen ku ku ku intelligent la koo xamante ne ni ak nitéem rek kenn waxtaanu ci ay xar baa xam ni ci la ñuy wax ni waaye ku bàyyi xel yu bëree bëri la euh, daa yi nga xamante ni moom lañ doon jëfandikoo itam euh, kees gi ko daan def ma nga fa xotti biteel ma nga ca ay ndoxi sam-sam yoo xamante ni nii ba fi nekk la ko lañ ko ko daan indil di ko jëlee màkk mu nga xam ni pot bi weñ lay doon. Hmm. ba léegi jeexital yi ma fa. ba tey itam lu bare bari ci ay bagages am daal ma fa tapp yi mu ko daan lalal ak yenn ci xeeti bagages yooyu ma nga fa. uppukaay googu nga xamante ne ni jamonoy tàngoor la ko daan yor ci biir néegam nga xam ne gone yi koy upp ci biti la ñu ne buum gi la ñuy xëcc nii rek nga xam ne benn kii lay doon buñ takk ni nga. wutal ko ay bant yu ko tey nga xam ne dañuy xëcc ni rek dañ koy awante nga xam ne ku xëcc xëcc ba sonn léegi dem tëdd sa morom ma neen morom ñëw doon ba tey jeexital yaa nga fa waaw. jërëjëf sëñ Ahmadou nañ ci jataay bi tey xam nañ lu bari ci kër gi nga xam ne mooy kërug Daarul Xuddoos ci cosaan li ni ko sëriñ bi sose ak li taxoon mu sos ko ak yi mu fi def ak jeexital yi ak yiñ ci mën a jàngate hmm. waaye nag loolu day delsi ci bayt yu mu ñaanoon boromam ne wajal bihi daariya kal madina barakatan wal kaabatal masuura kaddu yooyu tàggoo mbokki téléspectateurs yi waaw kaddu yi de moom weesuur rek ne barab yi nga xamante ne ni sëriñ bi moo ko moom ay barab la yoo xamante ne ni mat na bàyyi xel ndax saayir sa bokkut ak batin rawatina nag barab boo xamante ne ni sëriñ Tuubaa ko taamul boppam nekk fa ci ay at damay wax ni barab bu am réseau la boo xamante ni bu neex a la barab la yoo xamante ni ni mat nay baril di ñëw ndax dañuy wax ni bokk na ci jagle yi kër gi mooy ku fi ñëw suñu borom jéggal la mag ñi sax dañ daan wax ni boo nee maa ngi fay dem bala nga fa àgg suñu borom jéggal la say bàkkaar ndax dee su fa duggaale bàkkaar Séblaat daan wax ni ñëw Touba ba génn te di ma béy mi ngi mel ni nga jub am néeg mu riir ba wàññi ko loolu lépp ak jagle la rek yoo xamante ni mat naa bàyyi xel. noo ngi ñaanal ñëpp yërmande suñu borom wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. jërëjëf jërëjëf sëñ Ahmadou jërëjëf jërë ngeen jëf mbokk yi kon lii mooy li ñu leen indiloon tey ci suñu numéro un ci rubrique bi nga xam ne moom la leen MK tànnal ñu tudde ko nemmeeku di nemmeeku ay barab ñëwoon tey fii ci daarul xuddoos kër cheikhul xaddim gi ci daarul xuddoos ànd ci ak sëriñ ahmadou ndiaye ngiraan dégg ngeen leeral yu am solo yi nga xamante ni wax na ko ci kërug daarul xuddoos gi ak jeexital yi ak li taxoon sëriñ bi sancoon ko daan fi defee xalwatoom ak eh, xeeti barke yi nga xamante ni nekk na ci daarul xuddoos mu jara dox lu baree baree bari ñëw fi ngir nemmeeku ko ngir ziar ko kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen dig daje ci suñu numéro 2 bii di ñëw incha allah ci yeneen i barab di jaajëfal Serigne Abdoul Khadir Bousso mi nga xam ne moo doon coordonné émission bi waaye itam ak techniciens yi nga xam ne ñoom la àndal Serigne Cheikh Diop Serigne Alhaaji Serigne Chouaib bi Bousso ba ci Serigne Mourtada Ka ñoom lañ àndaloon tey équipe technique boobu ñëwoon fii ci Daarul Xuddoos ñi ngi leen di ñi ngi leen di dég di dig daje beneen yoon incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu min aqdi wa min amali wa min maqaali fa kulli saara lillahi allahu akbar mimma kuntu atlubu wa min atlubu kawni abda lillahi